dialogue-là tout le monde semble converger ver la même direction li ñu dégg euh, le maître moom mooy euh, il faut rebattre euh, les les les les les les cartes. non dégguñu un dialogue politique boo xam ne. non les vingt cinq organisations de la société civile les plus représentatives ñëwuñu. Mm-hmm. ñi nga xam ne jàpp nañ ne dañoo war a maintenir les choses en l'état trois quarts bi. ñëwuñu ci dialogue boobule et mu mel ni sax dafa am une préparation ku ci jël kàddu euh, da ngay conforter président et on soupçonne que le président veut qu'on rebatte les cartes parce que président nee moom wax na li mu bëgg jàpp na ne processus bi dañ ko war a tëggaat yow amoon nga fa représentant ah xam naa ne d'habitude invité invité wuñu ma vous êtes très bien <laughs> informé ça je le sais mais Maïmouna soo dégloo quand même. Euh. kàddu yi fa jóg mais on était en direct. Ah, jusqu'à la fin. super. donc soo soo soo soo soo jàppee kàddu yi fa jóg soo seetloo deux tendances mu fa am. beneen tendance bi barewuñu de bu ñuy wax sax dañ leen di xaw a usuye. wax ci xaw a jóg. non pourtant pourtant président trois sujets la fa abordé. Euh. trois essentiellement benn bi amnistie la am na ñoo xamante ne ànd nañu ci amnistie bi. am na ñoo xam ne ànduñu ci le sujet est le président motivé na amnistie bi wane na importance su amnistie na ne réew ak adversité politique opposition politique lutte pour le pouvoir combat politique lu mu mën a metti metti metti dina am période boo xamante ni mën ngeen war ngeen mun a am esprit de dépassement de pardon ngeen def réconciliation baale fàtte amnistie bi am na ñoo xam ne ànd dañ ci am na ñoo xam ne mais moom mu ne man loolu laa gëm te dinaa engagé sama gouvernement pour ñu préparer ko mercredi prochain conseil des ministres nañu adopté loolu projet de loi bi sur l'amnistie deuxièmement dinaa wax samay député ak député opposition bi ñu ànd nekk benn wote loi boobu assemblée nationale ndax man dama gëm ne réew suy dox dafa war am ay période yoo xamante ne dañuy baalante dañuy baal dañuy fàtte dañuy jéggale loolu wax na ko fa deuxième sujet bi mu fa abordé même ci date bi la date bi soo seetloo am na ñoo xam ne dañ ne dañoo bëgg dat bi lu mu gën a jege jege jege mu gën a baax première tendance bi loolu la am na ñoo xam ne dañ ne lu mu gën a jege jege jege mu gën a baax grand sëñ nee sax moom sa yoon suba lañ koy def waaye munul nekk am na ñu ne waruñoo a mars ñii ne dañ ko war def avril. donc am na ñoo xam ne li ñu jàpp mooy lu mu gën a gaaw mu gën a baax représentant secteur économique lu mu wax nee na bi lu mu gën a yeex muy gën a sooxeel suñu économie. l'économie c'est le pays s'est arrêté. ndaxte ndaxte am na ñoo xamante ni tant que élection amul tant que incertitude la ñu nekk ñu bëgg dugal seen ressources wala seen investissement Sénégal. wala ñu téye seen financement. lu ñu mën a dégg la loolu am na ñu ne non non mun nañ koo dàq ndaxte dañoo nekk carême. dañoo nekk weeru koor euh, am na ay gàmmu yu am ci diggante ba nga xamante ni war nañu xool date boo xamante ni du passé nawet bi juin deux tendances yooyu moo fa am ñi ne nañ ko def tout de suite ñi ne noonu nañ ko def mais soo seetloo y a un consensus pour du ñu génn trois mois yi consensus amul kenn ku ne nañ ko yóbbu décembre amul kenn ku ne nañ ko yóbbu octobre ñi wax ñëpp ñi naan nañ ko def léegi ak les dix neuf candidats ak nañ ubbi ak yooyu yëpp ñii mars la ñu wax ñi juin ci trois mois yi trimestre bi kenn passé wu ñetti weer. mais tendance bi naan ñetti weer nañu nañu tëggaat lépp nag. non de troisième sujet bi ñu fa discuter loolu mooy troisième sujet bi mooy dañoo war a ubbi wala dañoo war a nekk avec les dix neuf président Macky Sall moom waxtaan wax dëgg ca la moom su sañoon président su sañoon moom su fekkoon ne moom mooy décider rek librement. day amnistier ñëpp dañuy ubbiwaat processus électoral bi ñi nga xamante ni dañ leen jàpp ne dañ leen écarté à tort comme Karim Meïssa Wade ñëw dugaat même ñi amnistier su fekkente ni conditions yi permettre na ko. parce que yi permettre na ko ñu mën a bokkaat moom li mu gëm mooy comme ni nga ko waxee ci discours am 3 février. élection libre transparente inclusive. dans un Sénégal réconcilié. mais loolu la ko acteurs yi yàgg a wax. Ah, loolu la gëm. mais loolu la ko acteurs yi yàgg a wax. moom la gëm moom la wax depuis un an. c'est ce les acteurs disent ku fi ñëw toog danga naan élection libre transparente et inclusive. oui loolu la ko loolu la ko acteurs yi yàgg a laaj. oui. <laughs> mun munoon nañu réunir les conditions à l'époque mais moom moom la def loolu dialogue bi moo indi bi ñu defee dialogue bi ñu béy euh, Karim Wade mu war a nekkaat candidat Khalifa Ababacar Sall war a nekkaat candidat parce que. Euh, loolu moo tax d'ailleurs li ñu écarté Karim Meïssa Wade xaw a bett parce que ñëpp xam ne jaloo bi ñu defoon li ci ëppoon solo mooy ñaaru homme politique yooyu ñu réhabilité leen dugalaat leen ci jeu politique bi donc Khalifa Ababacar Sall ñëw dugg Karim Wade ñu bloqué ko ça ça pose problème. waa léegi donc élection inclusive boobu président di woote moom daf ko gëmoon.